maa ngi yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm. yow la sa patron bu jigéen bi doon dóor. waa balaa ñuy commencé si balaa ñuy egsi si problème bi carrément nu mu demee mën nga moo wax euh, ñaata fan nga fa liggéey. Euh, man benn jour rek laa fay gisoon liggéey. kan moo la jëloon foofu nga fay liggéey. jëkkër na jëkkëram de moom ma jëloon nee dafa bëgg jànk ku koy liggéeyal. lan la lan ngeen waxante woon bi mu bi mu lay jël. ah ba mu ma jëlee daf maa ne comme liggéey jànk liggéey liggéey kër. waaw. yóbbu xale yi école euh, nettoyé kër gi fóot yëre xale yi loolu rek lañ waxoon. loolu ngeen waxante woon mu war la fay. waaw nga liggéey fa ñaar fukki fan. waaw vingt jours. lan nga jotee ak jabaram. jabar ji daal mosu ñoo jotee dara mosu ñoo xuloo ba ma demee foofu tamit mosu ñoo jotee dara daal. premier jour daal. Mhm. premier premier jour ba may fóotal yëre xale ba xale yi. Mhm. dimanche bi. jour dimanche la tombé woon léegi may fekk may mu yeewu mu may fóot yëre xale mu ne ma waa lu tax yow sama yëre yi nekk si saal bi fóotoo ko avant loolu moom fóot ko tamit vendredi lañ ñëwoon foofu pour fóotali ñoom seen yëre yi léegi vendredi samedi dimanche man ma fóot yëre xale yi avant may fóot yëre xale yi nag fekk man foot naa yàggul après ma gis yëre xale yi bëri waat ma ne waa waxuma ko kenn mais wax naa ko sama biir xol mane ne waaye yére xale yi moom bëri na di ma ne ah garaaw ndax man xam nga affaire wax dafa may déranger man bugguma coow xaw ma ko sax ma ñëw ma génnee jour yi man a ah xaaram tey mu fóot yére xale yi léegi ma génnee sépp yére xale yi si pan bi si saag bi may sépp xale yi dugal ko si beneen pan bu ñuy fóotee ba pan bi fees léegi may mu seek ma seek may bàcc ma bàyyi moom ay yére mi foofu parce que yére yi dafa bëri te tombé heure boobu man dekkee ma sax te pare wu ma sama ay heure boobu mhm. léegi mu fekk may fóot yére xale yi mu ne ma lu tax fóotoo sama yére yi man ko ah yére da yére xale yi dafa bëri mun ma kaa fóot tey xanaa beneen yoon mu saaga ma ndey. mun ma mënoo fóot mënoo fóot yére ay yéreem yow parce que yére xale yi dafa bëri. waaw loolu nga ko wax. waaw. léegi ma ne ko mun maa fóot tey rek ma ne ko ah tey rek mun ma kaa fóot tey parce que yére xale yi dafa bëri xanaa beneen yoon mu ne par la force da nga koy fóot mu saaga ma ndey. man nu ma sëggee noonu du fóot nag mu dugg si waañ bi man xalaatuma sëgg man dinaa mos a xeex sama àdduna man damaa man dépassé naa ay xeex yooyu noonu. léegi mu fekk mooy fóot mu jël kur gi dóor ma ko si ginnaaw fekk maa ngi toog wane ginnaaw mu dóor ma kur bi si ginnaaw. ba ma dóoree kuur si nag si laa jóg nag man ba ma dóoree man damaa pertu bi xaw ma woon fan laa nekk dama doon miir. ba ma ba ma miiree nag après si la ma songu sànni ma si biir paan bi ma doon sóotee. Mhm. mu sànni ma si biir paan mu songoog man di ma dóor ma ne ko mais bàyyi ma yow da ngaa ne ma fóota ma ne ah mun ma laa fóotal tey yére xale yi laay fóot dama koy fóot nga saaga man nday mu ne waa yére di nga ko fóot tey si la ma songu na dugal ma si biir si biir bi matt sama bakkan bi matt sama bakkan ma yuuxu naa ba sonn ma naroon naa faa dee sax yuuxu naa ba sonn bàyyi sama bakkan way dinaa dee way bàyyi ma way dinaa dee taxu mu bàyyi ma matt sama bakkan bi ma bakkan bi de si kaw su yax yi di dajaloo instant bi bakkan bi day metti mhm. instant bi mhm. kon waa mu retourné bi fekk mu ngi téye sama ñaari loxo yi soo leen xoolee vidéo bi dangeen ko gis mu xoo mu téye sama ñaari loxo yi sotti ko ci paan bi muy maatu tuñ bi di maatu ma yuuxu di yuuxu ndax aywa eh, nu ma nu ma jëlee position bu ma jëlee man mun ma woon dara ndax moom soo leen xoolee vidéo bi moom moo ëpp doole man xaw ma sax ni ñu xeexee moom moo ma ëpp doole mu fekk moom may fu may may mu juutal ma mu sànni ma si biir paan bi daal mu di sama kaw di maatu di maat ma ne ko bàyyi ma bàyyi ma paree buñ loolu mu jël sama bopp bi juutal ko si biir paan bi. quand ma doon fóotee fu saabu bu nekk yére xale nekk nee na day jël sama bopp bi ñu ñu ko si biir paan bi maa def le tout pour génn si biir paan waaye na ko naroon naa faa dee wax na lii yuuxu naa ba sonn taxu mu bàyyi ma ma ma ma ma daanu si suuf mu retourné waat yéegaat sama kaw mu may mu may dóor di ma dóor sama baaram bi dakaa maat loxo bi dakaa maat baaram bi dakaa daka dakaa maat ba baaram bi dañ séparé wu. baaram bi dafa séparé. dafa séparé dafa dagg Euh, te yéen te yéen ñaar waxaalewul woon bu yow bi nga ñëw ci kër gi yow waxoo woon da ngay fóot fóot yi ay fóot ay yére bokk ci woon xëy na xale rek ngeen waxaale woon. waaw yére xale lañu waxaale woon. man jëkkër maanaam moo waxaale yére xale rek lañu waxaale woon. ok yow diiran vingt jours yi nga nekk foofu moom danoon xuloo ak jëkkëram wala mosoo ko gis mu xuloo ak jëkkëram. non man loolu nag jotuma cee xam dara. yow da nga daan wàcc wala da nga daan fanaan. dama doon wàcc quinze jours. sa quinze jours daan wàcc di ñibbi. mais euh, ba jour bi ngeen di xeexee ngeen mos am problème yéen ñaar mosu leen am problème ginnaaw bi ngeen xeexee de déedéet mosuñoo am problème mosuñoo xuloo te mosumaa yónni ba ma bañ man daal su ma xëyee daal lu may liggéey laay liggéey damay xëy depuis sept heures di liggéey ba dix neuf heures laay arrêté sama liggéey ndax damay damay nekk di liggéey mu ne ma kaay ma yónni la dama dama jëndal ma lii ak suñu dëkk ak tali ba dafa sori damay bàyyi lu muy liggéey ma dem ma dem ma dem yónni yónni am d' après euh, d' après ki ki nga doon sa patron bu jigéen bi nga doon xeexal ni yaayam nee na jëkkëram moom moo leen euh, sa jëkkër patron bi moo la doon monté contre jëkkëram ne la moom mooy sa patron moom jëlu la. loolu am na loolu amul. ndax gis nga man ba ma ñëwee si biir kër gi man xooluma ki ko kii moo ma jël te kii jëluma lii sama liggéey wala lii du sama liggéey man damay liggéey rek ndax man loolu laa xam. man dama doon liggéey rek sama liggéey moom mosuma yoon ba ko dew ma. jour boobu rek la premier jour ba may fóot ci la ma wax ne bàccaale ma ne ah mun ma kaa bàcc parce que yére xale dafa bëri te avant loolu moom daf ma doon jox ay ay ay bëjëm wala ay robu yendookaayam su may bàcc ma bàcc ma bàccaale ko ne loolu man dafa ko muy dara jour ba ma waxee na bàccaale ma sama yére ma ne ko ah yére xale dafa bëri la paan te heure te pareeguma sama liggéey ma ne ko mun ma kaa bàcc tey xanaa beneen yoon nee na dama koy bàcc mu songu ma. d' accord léegi ginnaaw bi ngeen xeexee ba pare dem ngeen police ba ñu àtte leen ba pare actuellement nii yow ci yan condition nga nekk. instant bi man sonn naa trop ndax sama bopp day métti damay miir parfois su ma yàggee sëgg damay miir comme su may julli ni damay miir ba duma ma xam sax fu may taxaw tànk jëlum tànk tooguma wala ma tëdd du ma xam fu ma nekk bopp day métti day damay miir tamit. d'accord sama ndigile mhm. ndigile mun mënuma toog toog bu yàgg su ma toogee tuuti sama ndigile day métti sama yaram yëpp ay métti il ma dem tëdd man damay journée bi danga koy yëndoo tëdd. d'accord léegi la yow lan nga bëgg yow léegi. instant bi lu ma bëgg daal lu wax naan trois mois dañ koy tëj. trois mois boobu na laa bëgg ta dégg nangu bëgguma kaa dégg trois mois ak cinq cent mille bi ñu may jox loolu bëgguma ko. yoon dafa ne yoon yoon dafa ne ñu jox la cinq cent mille nampaay. waaw moom ñu tëj ko trois mois ferme. trois mois ferme waaw loolu d' accord oo ci. déedéet d' lan nga ci bëgg léegi. moom nañ ko teg fii ba vingt ans. Hmm. te sama xaalis na ma ko jox ba mu mat sëkk. ndax moom daf maa naroon na rey. foo xamante ne la musk laa dépassé man bët may xoolee sama bët boobu laa koy xoolee. te man du ma sax man na ma ay ay ati at. ñaata at nga am. man denc naa la am. d' accord d' accord léegi soo amaatul leneen loo ci dolli rek merci. man daal leneen lu may mën ci dolli euh, waa di wax waa képp ko seetaan vidéo bi daal métti na leen trop parce que da ngay seetaan émission bi nga gis mère mm, wala pa mu woote mu wax lu daw yaram wala mu jooy mu ne nee na bi dafa daw yaram trop maa ngi leen di parce que yëf yi métti na trop man vidéo yi sax sama waajur yu mujj ma bëgg ma sañu seetaan ndax dañoo jëm mag mun na mun nañ kaa seetaan affaire bi jëmee leen kaw wala affaire tension bu ñu nekk mu daaneel leen boobaa du baax si ñoom te vidéo bi nag ak photo bi ko ko publier nañ def la ñu jàppale ma ko ñu génnee ko si réseaux sociaux parce que bu ma gisee vidéo bi ak photo bi métti na ma trop ba ci kanam yàlla. d'accord nañ ma jàppale mu génneew te sama loxo bi nag baaraam bu mu dagg wax naa ko sur bi naa ma ne ma ko delloo parce que sama loxo bi guddi mënu maa nelaw. barki déew trois heures du matin laa jóg ma toog di jooy sama loxo la sama yaram bi yëpp di métti sonn naa franchement nañ ma jàppale. léegi léegi léegi yow eh, sa eh, sa dakkatu baaraam bi ca kër gi nga ko bàyyi woon. man daa xaw ma ba mu daggee sama baaraam bi xaw ma man man xaw ma xaw ma woon sa fan laa nekk. moom da da koo mu dagg. da kaa màtt ba mu dagg xaw ma fu mu ko def xaw ma da kaa woon xaw ma mu ko nu mu ko def noonu. d'accord merci beaucoup. ok merci.